bismillahi irrahmani irrahim an aishata radiallahu anha zawji nnabiyi sallallahu alayhi wa sallama haddathat annaha qaalat li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ya rasulallah hal ataa alayka yawmun kaana ashadda min yawmi uhudin suñu yaay nde Aysatu radiyallahu anha kii soxnaay suñu sang mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci moomu nettali ne bés dafa laaj yonantu sallallahu alayhi wa ndax dikk na ci yow bés bu gën a metti bés Uhud maanaam ci sa dund gi ndax daj nga ci lu gën a tat li nga daj Uhud Uhud xam nga ne yonentu sallallahu alayhi ci lañ ko xaañ damu ci bëñam seytaane yuuxu ne yonent Muhammad deena sallallahu alayhi waaye mu wane ci njàmbaar goo xam ne tax na yéeféer ya daw lañ bëggoon amuñ ko fa qaala yonentu sallallahu alayhi wa wax ko ne ko an ah kay laqad laqiitu min qawmiki dajee naag lu métti jógee ci saw nit mu ngi ci tudd mu ngi ci jublu Quraysh ak ña wër Quraysh wa kaana ashaddu ma laqitu minhum li gën a métti ci li ma dajeeg tukkee ci ñoom mooy la ma dajeeg bésu aqaba muy bam demee Taif id aradtu nafsi ala bni abdi yaa liila bni abdi kulaalin ba ma gaaralee sama bopp ca doomi abdi yalil doomi abdi kulaal njiiti taayif falam yu jib nii la ma aratu tontuwut ma jëm ca la ma namm mooy woo kanaa ko ci lislaam mu bañ waaye yamuñ ca lu ne def nañ ko ko fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa bi qarni saali bi ma jógee fekk maa ngi ànd ak njàqare am e, ñu ngi ma blessé e, waxuma la physiquement rek waaye émotionnellement xexiwuma lu dul ca xarnu haalib barab la ca biti taayif fa rafaatu rasi ci noonu rek ma yëkkati sama bopp fa ida ana bi saxaabatin qad adallat ni ndekete niirang ma tiim fa nadartu fa ida fiha jibrailu alayhi salaam ma xool fekk jibril a ca ne fa naadaani mu wooma fa qaala mu ne inna allaha azza wa jalla qad samica qawla qawmika laka yàlla subhaanahu wa taala dégg na waxi saw nit ñeel la wa ma raddu alayka ak liñ la tontu bi ngi ci lislaam bañ ngiñ bañ ak niñ jëflanteeg yow yàlla gis na ko wa qad ilayka malaka aljibaali li taamurahu bi ma chita fihim yónni na malaakaay doji ci yow ngir nga jox ko ndigal loo ci ñoom qaala fa naadaani malakul jibaali wa sallama alayya yonentu sallallahu alayhi wa ne malaaka mi yore doji wooma daal di ma nuyu humma qaala topp mu ne yaa Muhammad e yow yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam daw privilège gisante yonentu ba di ko xoo inna allaha qad sami'a qawla qawmika laka yàlla dégg na waxi saw nit ñeel la wa ana malakul jibaali maay malaaka mi yore commande doji wa qad ba'athani rabbuka ilayka li ta'murani bi amrika yàlla yónni na ma ci yow ngir nga jox ma ndigal fa ma shiita loo bëgg boo bëggee at baqtu alayhimul axshabayni ñaari doj yi nga xam ne ñoo leen séq boo bu soobee ma tàncale leen ñoom ñaar ci seen kaw fa qaala lahu rasulullahi yonentu sallallahu alayhi ci yërmande ju bari nebbal li fi nekk arjo dama yaakaar tey ñaan an yuxrija allahu taala min aslaabihim yàlla génne ci seeni ndigg man yacbudullah waxdahu koo xam ne yàlla rekk lay jaamu laa yushriku bihi shay'an du ko booleeg dara rawaahu muslim hadis ji muslim man ko solo ci bunt bi mu tuddee maa laqiya baabu maa laqiya nabiyu sallallahu alayhi wa min adal mushrikina wal munafiqin li yonentu ci loru mushrikin yeeg naafiq aka bëri yërmande kaar aka rafet xol kaar aka am ñeewante kaar lim daj yëpp terewut ma wutal ña lor ngant di ñaan yàlla mu dundal leen ba ñoom buñ nanguwut sax seeni doom nangu teraanga ji indi yal nañ yàlla may xolam bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim